ñun daal li leer mooy école bi comme ni ma wax bun réglé woon jafe-jafe yi kenn mënta mobiliser jàngalekat yi ci ci grève ja jafe-jafe yi bu ko état bi réglé bu dee ñun dañuy politique mais na réglé jafe-jafe yi pour xool ndax ñun mën nañoo mobiliser jàngalekat yi jàngalekat yi actuellement dañoo ay revendication yoo xam ne bu ko nguur gi réglé jàmm am benn mooy mu régulariser les 5000 enseignants yi mu jëloon mu ku ci nekk liy sa àq ak ñu jox la ko ñun tuddee ay décisionnaire injustement ñu jël leen ñoom ñëpp daal leen di changer statut dugal leen ci biir fonction publique bi ñu nekk ay fonctionnaires ñi nga xam ne ay MEPS lañ ay professeur d'éducation physique yoo xam ne ni leen jëlee woon ñun ñëpp xam nañ ko ñu régulariser seen situation parce que mun ñu nekk ñoo xam ne xamuñu ay instituteurs lañ xamuñu ay professeurs lañ kon dañoo wax ni nañ leen leen reverser ñoom MEPS yëpp nañ leen leen reverser dans le nouveau corps des PCMG en EPS kooku bu ñu ko defee toftal ci également les chargés de cours ñu forme leen parce que chargés de cours lañ leen formé woon ñu ngi ci lycée di jàngale ak collège kon dañ leen a war a formé waat comme ay professeur maintenant loolu état bi xam na ko mais mi ngi defal yii ma fi lim su ko réglé ñun syndicat yi mënatuñu grève parce que suñ grève kenn duñ topp su ko deful nag danay jàmmaarloog moom tappale nag ak naan ay politiciens lañ ah, ay politiciens encagoulés lañ loolu réglé wul problème bi bu ñu bëggee jàmm nan réglé jafe-jafe njàng mi jàmm na ñooy suñ ko deful jàmmaarloo bi day door. ko si def li ñu def loolu la ñuy xaar ci ñoom parce que ñoom société civile lañ bokk société civile nag dajale yi am na solo. kon def li mu def baax na maa ngi koy rafetlu wax dëgg yàlla dajale nit ñi pour ñu waxtaan ministère éducation nationale nag ñoom ñoo ko waroon a njëkke njëkk ñoo fii ñoo fi waroon a jiitu parce que ñoom bu ñuy waxtaanee njàng mi ku ci ne di wax di xalaatam pour xool nu jàmm di amee ñoom ñoo ko waroon a njëkke ñëw taxaw fii toog sax ñëw jàppale ci sax ñi koy organiser mais kenn gisu leen fi loolu mooy lan yow yaa ngi yore njàng meeg njàngale mi ñi ëpp responsabilité ci njàng mi ñu ngi fi tey syndicat yi ëpp doole ñëpp ngi fi ci biir rencontre ah société civile ay personnalité indépendant ñoo xam ne école bi ñor na leen ak ay panélistes ñëpp ñëw toog ah ministre de l' éducation nationale absenté te waxul kenn remplacé ko fi waxul kenn mu ñëw ci turu ministre éducation mais lool moo lay wan ne ñii njàng mi ñoru leen intéressé wu leen sax parce que su leen intéressé woon lu mu gàtt gàtt dina am benn directeur de cabinet wala directeur de l' enseignement moyen général et cetera wala directeur de l' élémentaire wala et bu ñu fi yónnee mais yónnee wuñ fi kenn même sa directeur des ressources humaines ko fay yónnee. mais encore moins sa directeur de cabinet wala sa secrétaire général ministère moom moo lay won ni ministère éducation nationale nekkul ci loxo yu baax. ministre éducation nationale day jéem a jaay nappaate te ñun kenn mun ñu napp ba que dafa dem ci tele naan jàngalekat yi de bu ñu grévé dina xu dina dina dina jàmmaarloo ak ñoom maanaam di xuppaate léegi nag dañ koy wax ne ko ñun kenn duñu xupp parce que ñun ku ñu xam xam ne ku ñu jam doon naa ni kon bu bëggee jàmm na na wut ay saafara ci jafe yi waaye xuppaateeka nappaate taxul ñu dellu ginnaaw.